Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoom ñaar jamono ji yéen kaay bi mu wax moo di gisaguñ leen ci poste yi nga xam ne ñu ngi koy fale moo xam kër wékku càmm gi ay direction ko yeneen yu ko nuru ba ci cabinet yi waaye nag nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla laaj la bopp amaana ñoom ñoom ñoo ca war a gën a mën a tontu ak naka naka lañ koy gisee waaye nag boo bëggee dégg-dëgg càll ñu bëree bëri ci Sénégal dañuy dugal bëgg di dugal coow wala laaj foo xam ne jëru ko fa ndax ñi li ñu liggéey ci Pastef yaakaar naa bu fekkonte ne wàllum seddu amaana ndax ñoom sàkku nañ ko ndax itam ñoom fanu nekk jamono ji dafa liggéey gënul leen ngir ñuy sàkku dafa am loo xam ne maanaam cër boo xasee ba am sa bët du tegaat ci beneen cër ñoom dañ leen a cëral njëkk cër bi ñu leen mooy taxawaay bi ñu am ci Pastef ndax kóolute gi weesuwut ñi bari na borom xam-xam bari na nangam mais nga tabbu nit ni ko yaay sama mandataire comme Bassirou Diomaye Diakhar Faye ni ko deferee Amadou Ba nga tabbu nit Ousmane Sonko ni ayib dafa yow yaay sama mandataire loolu confiance la loolu kóolute la loolu lépp la dafa am loo xam ni nit bu ko xasee ba am ci nit du du wëriwaat dara wala muy soxlawaat leen gis képp koo gis muy xëccoo cër xamaa ne ko cër rek moo ko soxal tey képp koo xam ne yaa ngi woon ci coalition Diomaye président tey ci la poste nga tekk jàmbat wala ñi ëpp naan kii dafa war a a am poste mais kenn ko naan ko dafa war a am poste man ko jàmbat dégguma ku ne Ayib Daffé na am poste dégguma ku ne Amadou Ba na parce que nit ñi seen xel du àgg ci loolu mooy ñi dañoo am tey soo ko démb tey soo ko ñëw nit nag am na loo xam ne boo ko xasee ba am ba noppi doo soxlawaat leneen wala sa bët di fees feneen ndax ki la war a jox da ngay xam ne yow am nga ko ba noppi ñoom nag jàpp naa ne li ñu war jamono ji ci liggéey bi ñu ngi koy doxal mu di parti Pastef wala ba coalition Diomaye Président mu di Amadou Ba parti Pastef mu di Ayib Daffé fi nekk kenn ku nekk ña fay amal liggéey boo xam ni li ñeen fa soxlaa ña koy amal waaye nekkul ni nekkoo euh, ci ci yi ci cabinet yi ca dëgg-dëgg liggéeyoo. dañ ko war a déconstruire déconstruire bi mooy. Hmm. c'est pas parce que euh, falu nga que ñëpp dañuy nekk.